dimbalee ab Ablaye mbay di sa mbokk artiste bàyyi fi ku bàyyi loon fi yaayam kër des ko xëy toj kër gi ñu jox seen waa kër délai bu gàtt war leen a génne ci biti Sénégal gi yëpp ne bu yeggee ci nopp Wally Seck ñu dim mu dimbali ko. waaw léegi euh, buur loolu c'est très très important maa ngi ñaan euh, ñu gëstu leen nu mu gën a gaawee dégg naa suma papa Iran Ndaw di ci wax il pare dañ ma ko nettali.

internet whatsapp laa ciy def wala dugg Instagram posté photo sama liggéey ko duma ci dugg duma ma ko duma ko xool lu bëri alors yàlla dafa dogal su ma mag bu ñuy wax njaga euro di dem di jàll ji Pikine bi mu jógee di jàll ji mi ngi ma fekk maa ngi sol jiin ak t-shirt non dama ne damay jàll ji Pikine dañu am dëj ma ne ko ku gaañu mune ma diw ma ko ma na ma ko lan moko dal mu ne dafa mana est do que ñu and ma ko waaw wutal lee ma lu ma sol suma gardi corps mo daw ci ñew indil ma jàllaa bi ma jël jàllaa bi tek ko sa moto ñima gis may wacce Pikine gis nañu bima wacce wàccee la doko sol jàllaa bi dongku donc du lu prévoir ma dem jaale ki may jaale ci xawmako damay dem parce que nit nee na mën nañu ànd jaale ji ma xam ni tiyaaba la ak moom ma ñëw fekk fa ñoo xamante ni xam naa leen ñu jaale ba pare ñu rafetlu ko ay nit wax ma soxla foofu biñ ma ko waxee ñi fa toogoon dégg nañ ma may insi naa leen yàlla baax na wax bu àgg dafa ko moom parce que xam naa ne bu ma ci prononcé nit ñi dinañ ko jël ñii dinañ ko jël lu baax mais ñeneen ñi xam nga les prédateurs de Wally Balago Seck ils seront jamais waaw ñom duñu bék bég mukk parce que non lañu mel loolu moo problème donc euh, biñ ma waxé soxla bi mu leer ni man même suma ko mënul ci sama copar amna link bi amna naa ñit yoo xamante ne ma leen woowee def leen ñu def té ñom seen cadre agul fofu man leen dina ko def mais dina ko def bi indi na polémique ñi nan waaw pourquoi faju ñu ko man dama xam ku feebar mm-hmm.

waaye amaana kooku faatu tey wërsëgam ci lay doog a tàmbale. man mu Jules Baldé bi bu ma déggee. waaw wërsëgam ci lay doog a tàmbale yàlla waxoon na ni Jules bu faatoo ba pare la waajuram bu jigéen di doog am kër waaw. te woon na ko waxoon na ko def na ko. c'est évident c'est évident donc lépp lu may euh, des fois da ngay gis sax kuy bëgg dara nga yéene ko bëgg ko def te soo ko defee. man waxuma ko binduma ko ñoom seen bopp ñoo génn wax ko mais après day indi coow yoo xamante ni polémique yoo xamante ni dafay doy waar. mais ngi ñaan daal ñu dimbali Ablaye waaw maa ngi ñaan ñu dimbali ko euh, bu ma ci waroon def dara it dinaa xool nuñ ko contourner def ko te ñu xam ni waale ko def.